dama ne la ah moo tax daal gars yi di ko xeexal. non non bi dafa non ñoom seen problème. est-ce que gënu si woon seen problème lan la. Mm. seen problème mooy le fait que ñu woo Wally Seck te nee nañ Wally Seck dafa toll ca BC naan des petits cons. est-ce que petit con bi euh, madame Niang est-ce que yow di nga jël lu bon di ko teg sa kaw. qui se sent mort se mouche. pourquoi ils ont pris ce petit con là pour moomale ko seen bopp bay wane ne Wally Seck waruñu koo jël Wally Seck ndayam jur ko fi mu ko war a juree baayam jur ko fi mu war a juree. mu doonub sénégalais mm. du juddi jéeri tekki sa ëmb indiwu ko fi mm. bokk ci xeetu faramaareen mm. ndayam liggéeyal ko xëyal ko mu gont baayam xëyal ko mu gont ñu ne lu tax Wally Seck ñu koy def ambassadeur lu tax Wally Seck di ko tëgg mais ministère de la culture ngi fii dama ne la dama ne la Sénégal mucc moo fii la ñu jël fii fuumalaat dama ne la fii la ñu jël fuumalaat yóbbu ko yóbbu ko culture bu nekk fa xaw ma fan ku ne dagg na sa yàpp yaram ne lu tax ñu koy def fuumalaat te ña ko ña ko ña ko ña ko yéene la ñu am ci moom xëy na moom ñoom ñoo leen doy hmm. nañu bàyyi séparation yi ñuy def waa ji footballeur bi dem na nu mu ti man xaw ma miinuma turam bi Sadio Mané mi nga xam ne ba mu juddoo ba tey mi ngi ñuy bégal hmm. di bégal waa réewam yorul ay milliards rek fàtte waa réewam hmm. yorul ay milliards rek ne man yor naa samay milliards man kese koy lekk du ma ci boole état di jàppale état na ndax jàppale état mooy jàppale dëkkam di def ci dëkkam loo xam ne ba ñu juddoo ba tey gis ay footballeur am footballeur bu ko def sa dëkk mm. buñ jël buntu kër gu ne nga leen di jox dépense weer bu dee mm. di def ay hôpital di def ay ambulance def lu ne di fa ay école loolu ci dëkkam ba la koy yemale ah. waaw mm. ku ci nekk boo defoon noonu sa dëkk état du sonn ku ci nekk ki am tekki tukki soo ko doon def sa dëkk def ni suñu mbokk saraxuleer tukkuleer yi def fee ci seen fuuta kon fenn du metti état dina mën a noyyu tuuti waale defut lool waale leer na la 60 millions la tek ci taabal bi barki dem ci tabaski bi ki hmm. di mieux hmm. dama ne ki di mieux ñan la ko jox dama ne ki di mieux ñi ci seen wërseuk nek hmm. ñan ko jox xamu ay jaamu yalla lañ xamul sax ba ay julit lañ wala ay catholique lañ dama ne ki di mieux jël ay nit di len embaucher wali sek amul ay nitu dem ay nitu tay la am astafula amul ay nitu tay ay nitu dem dama ah. joono dama joom amul ay nitu tay ay nitu dem la am wali sek ay xartu bayam lay andal Wally Seck ay baayam lay àndal ñoom Kéba Seck mm-hmm. ke eh, Wally sekk ay magam lay àndal ak i rakkam mm-hmm. ku mel ne Lamine Naar benn baay la ñu bokk su ko neexoon mu ne sama doom baay la amaa moom affaire mm-hmm. doomu su ko neexoon ne Wally sama rakk la sama doom baay la du ma ànd moom mais Lamine Naar dafa jël rakkam uuf waali sekk dëggal ko Lamine Naar a ngi dëkk fi soriwut jóge Italie dong nekk fi pour jàppale rakkam Lamine Naar Lamine Lamine Naar bu Ndeye Marie Ndiaye Gawlo lay àndal

ñu ne déet mu suul magam ñu ne déet mu suul ndeyam kooku dafa am lu ko doy sëkk ak barke rawatina mais attends ku ko mënta yërëm ci li mu nekkee mm. bari sénégalais dañoo xam ne wërsëg yamut mm-hmm. wërsëg yamut nit jiitu na Wally sekk ci way bi te amul li Wally sekk am mm. barki mu ba ñu bëggee ñëw jël Youssou Ndour di ko tëgg ci kawam dafa won sénégalais ne yu Ndour sama baay la ba muy way di tekki man tekkiwuma boobu maa ngi taxawaalu mm-hmm. kër coon sekk coon sekk dafa def ay ci ay éduca ci ay doomam man damaa xam papa coon man mhm. xam tata Kiné Diouf mhm. yàlla na leen yàlla yërëm yàlla seeni yax sedd ak képp kuñ fa mën a fekk yàlla na Wally Seck ak ñi mu bokkal sut seen ay waajuram ay fan coon mhm. sekk dafa nekk nit ku réglé nit ku maanu ñoo xam ko bu baax xale wale wuñ ko xam nañ coon sekk bu baax a baax a baax seen kër mënoo gëm ne xalaat sax ni ñi ay géwél lañ yow mës ngaa gis doomu Thione Seck di taxawaalu wala dégg nga ko fenn doomu Thione def na lii wala wax na lii amul mm-hmm. dañoo réglé mm-hmm. ñooñu seen ndey ak seen baay dañ leen a yar ba pare doole ci ñoom ñu xam àdduna yar seen bopp mm-hmm. nañu yàbbi Wally Seck nañu ŋaang wadd les gens sont méchants nee nañ nag euh, Amadou Ba daf ko jox xaalis nañu génne xaalis boobu ko Amadou ju ba jox Pape Diouf mi tey sax Pape Diouf mi dama ne wa fental na way Amadou Ba su ko neexee mais tay wa wa Pastef amna lo xamné buñ ko waré def Ousmane Sonko waxuma la sax Pastef man waxuma seeni wax. Mhm. mais tay Ousmane Sonko mi tay nek premier ministre wala jomay mi nek président tay suko ba Pape Diouf joxe audience daf ko wara a recevoir. Mm. c'est un citoyen sénégalais comme tout le monde. ça c'est clair. ndey ji cheikh la njaaxaanay lañu wara teud a audience tamit mais ño xamné ne rancunieux. mais audience ah, bokoy demander demandé da ngay def objet bi. dama ne la des gens qui sont rancunieux dama mm. ne la des gens qui sont rancunieux qui ont une rancune, qui ont une... Mais tu peux même pas définir les lignes li li mhm. parce que kilifa ko bu man unique fi may mais mhm. li ma ko. motax ñu sénégalais yi tabaski bi ñom ñu sais waaw waaw dox waouh waaw waaw madame li ñu bañal li ñu bañal ñi fi nek rek kay dox nañ joxe nañ pomme de terre joxe soble joxe ay chèque un million joxe joxe joxe joxe mm. joxe nañ de mm. waaye bi ñu doon bañal Macky Sall poste yooyu ñu doon wax ci Macky Sall ba tey poste yooyu dañul de mm. madame Niang poste yooyu di bërki dée mu dégguñu ne euh, nu mu tuddati El Malick euh, nommé waat na ay poste ah. ci biir ministère am anam euh, chargé de mission yi ah, <laughs> alalu Sénégalais yi cay lii ku wax lii wax la le lii comme guerre ah, Sonko ñaari jabar Jomaay <laughs> ah, ñaari jabar ah est-ce Sonko nekkul ci ñett wala kenn ki bu demee ñaar ñoo fi nekk. am ah, ñaar laa xam <laughs> Jomaay ñaar na nañ xaar ñeneen. Biram non Biram Souleye am na ñaar bu yàgg. est-ce que Biram nekkul tollu ci ñetteel. waaw ah, léegi nag kon nañ xaar ñëpp mais góor ñi leen boobu comme que kii ñu yor réew mi ñu ngi takk rek takk leen mais